day far mbollem xéeti bakkar dox seen digënté day far mbollem xéeti bakkar dox seen digënté ñaan yalla suñu borom subhanahu wa taala mu boole ci jaamam yi nga xamné dana far seeni bakkar yëkëti suñu daraja nangul suñu jaamu yalla gina lolu ñu fa séenee wéel ba légui rek ci tomb bi ñu tambali won mu jëmon ci walu waxtu maanaam ahamiyatu waxtu muy am solo waxtu xam ne moom la ñu tàmbali woon ci aljumaa ji weesu mi ngi jëmoon ci wàllu am solo waxtu ak ni ko jullit bi war a bàyyee xel ci tanzim ko maanaam ci tër ci tërin woo xam ne dana ko jariñoo waxoon nañ suñu waxtaan yu weesu am solo lenn ci am solo wax donte du jeex ndax waxtu bokk na ci li mu wuuteeg la neen moom mooy dañ naan al waxtu laa yantaziru ahada maanaam waxtu du xaar kenn munoo ne naa puus naa taxawal jant bi wala waxtu yi ba def nangam ak nangam déw ga si àggale loolu mënut nekk waxtu moom du arati di la xaar du taxaw benn barab du taxaw di la xaar kon nit koo xam nit képp ku mën a doon rek li ngay fas yéene def ngir jariñoo waxtu mooy nga xam ne ginnaaw du la xaar nga def la waxkat waxkat ba waxoon muy kun ibna waxtik nekkal sa doomi waxtu nekkal sa doomi waxtu waxtu wu nekk la nga ca war a def na ko ci def Cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu moo tax mu daan wax ne démb weesu na suba dikkagul àdduna lépp tey la démb weesu na loo ci defuloon mënoo ko ca defaat suba dikkagul xamoo daan la fekk wala déet kon na sa àdduna nekk tey àdduna jëpp nee na benn bés la muy tey fexeel ba tey jag doomu aadama bu nekk loolu la war a góorgóorloo bu baax a baax a baax li tax ñu ne la desu loo ci defu doon doo ko ci mën a defaat ca waxtu woowa mooy sëriñ Mbàkke Abdu Rahmaan xafisahullah wa raa am na waxtaan wu mu ci doon def bu am solo di leeral ne nit ki maanaam tey ci misaal tey la ajjuma loo waroon a def ajjuma munoo ne kat ajjuma laa ko waroon def waaye tey jàll na naa bàyyi ba ajjuma ji delsi ma def ko ajjuma du delsi aw turandoom mooy ñëwaat waaye ajjuma tey jii moom mënut a delsiwaat ci àdduna romb na romb na jeex na sa dund doomu aadama bu ko bàyyi xel mu nekk <clears throat> daa tax mu gën a xam dëgg-dëgg solo waxtu lee waxoon bi weesu ne mboolem ñi jariñoo ñi réussir ñi nga xam ne àdduna képp leen ñor àdduna képp leen ñor bokk na ci li nga xam ne mooy seen njariñ mooy seen for mooy seen njàmbaar mooy mën nos seen waxtu bal waxtu wu ne lañ ca war a def ñu def ko ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na ànd na maag nasaraan yi juróom ñetti at yu manqué tuuti waaye gis naa ci ñoom ñetti jikko yu jar benn bu njëkk bi mooy fonk waxtu ñaareel bi mooy wormaal kilifa waaleykum salaam ñetteel bi mooy mën a saytu saytu mbóot maanaam secret bu ñu xam duñ bu ñu leen xas confié dénk naa la secret bi doo ko dégg ci keneen nee na ñett jikko yooyu mat naa roy ci ñoom fonk waxtu wormaal kilifa ak mën a saytu mbóot kon ku ne ci ñun war na ci bàyyi xel kon ci nu muy def ba jariñoo waxtu yooyu ngir mën leen ca roy noonu la waxtu amee solo mbokk yi nit ki nag mu des nag waxtu ñaar fukki waxtu yi ak ak ak ñeent nit ku nekk nam cay jariñoo mi nga aju ci ni mu ko organisé waxtu wu lañ ko war a def waxoon nañ ci tàmbaloo nañ ci bii jàll waxoon ne ci misaal lu jëm ci jaamu yàlla gi am solo waxtu am solo waxtu da ciy feeñ ci ni ko lislaam organisé lislaam mënoon na ne rek bés bi na ngeen ci julli juróomi julli bés bi na ngeen ci julli juróomi julli moo ci war ku nekk nga xam ne saa boo xëyee suba teel yow am ak jot suba gi moo la arrangé nga julli sa juróomi julli génn ci am koo xam ne suba gi day am fu muy xëy am lu muy def waxtu digg bëccëg la am jot mu julli juróomi julleem am na koo xam ne kon boobaa day nekk ba guddi moom mu doog a julli juróomi julleem waaye l'islam ni mu organisé fonk waxtu moo tax mu ne inna salata kanat ala al muminin aw ala al muminin kitaaba mawquta maanaam kat julli moom yàlla daf ko wutal ay waxtu alaykum salaam da ko wutal ay heure yoo xam ne kenn kum doon bismillah bismillah ñu nii mu gën a yaatu day gën a yaatu kon fonk gi waxtu moo tax lislaam organiser ko noonu maanaam waxtu wu nekk mu wutal ko ne bis tisbaar heure bii la takkusaan heure bii la lislaam jàngale ko noonu léegi tegee mënoon na ne fukki weer yi ak ñaar na ngeen ci woor wenn weer lislaam mënoon naa wax loolu fukki weer fukki weer ak ñaar na ngeen ci woor wenn weer bàyyi nga xam ne yow yaay tànn weer bi ngay weer wan ngay woor yaa koy tànn yow yaa koy tànn yaay xool ba xam ndax weeru koor moo la moo la neex walla ndax weeru rajab moo la neex ndax weeru muharram moo la neex ci nga mën a woor nga woor ko yàlla mënoon naa wax loolu waaye waxul loolu dafa wut aw weer nee na ngeen ko ci woor lan lay jariñ liñ ci mën a jàngee mooy ne lislaam dafa am lu nekk dafa koy wut ay waxtu ak jamono naka noonu xaj màkka mënoon na ne rek aj Makka saa ko manee ci at mi na ko def waaye weer yii ñu wax ak yéen ba weeru koor diggante fii ba weeru koor ku fi demoon aj Makka def li xujaaj yi def lépp lépp nga def ko ba mat sëkk du tax nga am aj Makka ndax ajoo ko ci waxtu wa aj Makka ñetti weer la shawal dul qaada dul xijja mooy kori diggi wow tabaski ak ak weeru tabaski ñetti weer yooyu la kon loolu li ci jànge mbokk yi mooy ne lislaam moo njëkk a nos nos li nga xam ne mooy waxtoom bu ko defee nag nit jullit nag war cee jariñoo li nga xam ne moom bu farata yooyu jàllee say nawaafil nga góorgóorlu ci sa waqful quraan waqf fi ngay am ci sa alquran nga xool wan waxtu nga koy jàng am ci sa fulla wutal ko waxtu ni tisbaar jotee nga gëm ni da ngaa war a julli ji sëriñ Fallu nee na woon asaflaan Cheikhul Xadim radiyallahu anhu suñu sàng ba nee na woon bokk na ci am am am fulla nag looy def saa bu waxtu woo jotee nga bàyyi doon def dem defe ko loolu ci ci lu am solo bokk bu ko defee nag ci misaal leneen la jël jël waxtoom mën naa joxe meen misaal mooy ki organiser waxtoom nga xam ne saa bu 4 heures du matin jotee wala 3 heures mu jug jàng waqfu alxuraanam bala ñoo julli suba 6 heures moins balaa jot fekk na noppi ci alxuraanam ba jàng ba tàmbali xasidaam ñu julli ba noppi mu tàmbali ay awraatam ak njàngum xasidaam ba 8 heures 9 nag. lam waroon a lu ca guddi ga ak am na nu mu war a organiser waxtoom ndax yaram wi daa am xaq daa war a noppalu mu dal di koy jëlal nag waneen waxtu mooy diggante dix heures ci misaal onze heures jëm midi xëy na waxtu wala noppalu waxtu woowu mu tëj koy noppalu léeg-léeg nga gis ku ñëw di jàmbar rek naan naan naan sëñ diw wala diw dama faa dem yàgg fa lool ubbiwul amaana dañuy nelaw rek léeg-léeg nga dégg gars yi doy waat di ko wax ba muy jaamu yàlla yëgoo ko dafa organiser waxtoom même bu dee nag sa waxtu yor-yor nga jàpp ne moom nga jàng sa alxuraan jàpp ne moom nga jàng sa alxuraan yor-yor saa bu 9h jotee 10h ba 11h yow waxtu woowu moom alxuraan nga ko jàng nga xam ne ñëpp xam la ci boobaa nga tëju ak nga ñàkk tëju maanaam boo tëjoo kenn wut ku ñëw daa war a xam ne waxtu wii kat waxtu jàng alxuraanam la dafa organiser waxtoom mu noppalu ñaareel ba moom mooy koo xam ne dafa ñëw sax fekk fekkut sëñ bi tëju waaye fekk na ko mu leer ko ne lim am yitti dëgg-dëgg moo jukkeem bi àgg moo jukkeem bi àgg bu dee sëriñ su bari danañ la rus rek saan ngay wax ñu lay tontoog nangam am na ñoo xam ne nag dañ dañ naan cell wéyal seen seen alxuraan di jàng nag nga tàmbali jàng jàmbat suñ mi naa fa toog boo jógee daal wa taala kuy am audience ak yàlla nag mën a faale mi def diir boobu yow yaay sëñ bi lii mu yittewoo yaa a am gu toll ne ki du bara bu wax soxla waaye gis ko sëñ bi tas yor jukki bi di jàng yittewoo ko lool nga a sëgg sëñ bi de man nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ca fekk na foofa du barab ba ndax du waxtu woowu moo tax ku organiser sa waxtu rek mbokk yi ndawul waxtu képp koo xam ne organiser ko mën na ko jariñoo noonu kon jaamu yàlla gi amee sa yaram am ko ay xaq yoo xam ne am nga ko ci war ko koo jox ci noppalu ci nelaw ci sangu ci lekk ci naan yooyu yaram def ci am xaq inna li badanika xaqan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sa yaram wi dafa am xaq ci yow naka noonu sa njaboot dafa am xaq ci yow loo man mën a jaamu yàlla na nga xam ne bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg toog ak sa njaboot bi waxtaan ak ñoom bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg jaamu yàlla yi gën a màgg bokk na ci sa njaboot nga toog ak ñoom ñu bari dañ ko neen la yaakaar ne seen seen njaboot moom la ñuy séq ak ñoom mooy ñu ñëw soxla leen wax leen soxla delluwaat waaye ab jataay nii rek toog waxtaan ñi ko def néew na ñu bari dañ ko bàyyi léegi te loolu nag bokkoon na ci bokk na ci gën a am solo yoo xam ne nit ki dafa war organiser bañ xam ne waxtu wii waxtu wii la dama am sama menn mbokk benn xarit bu nekk ndakaaru seen kër gi kër si yi ñu dëkkee kër gi ñu dëkkee maanaam ay kër yu tegaloo la war naa mat juróom waaye seen wajur daf leen fee bàyyee woon loo xam ne ñoom nee nañ ca ba ñu nekk ca àll ba lañ ko tàmm xam nga am na ñoo xam ne bu ñëwee ci réewum taax rek dañuy seey ca doxin taax waaye ñoom defuñ ko seen nga gaaw bu ne gaaw ci guddi bu nekk ñoom ñëpp ci benn barab la ñuy reere bu ñu faree fareeree fan ñuy bokk toog ci benn barab ba minuit kenn du taal téléphone waxuma la kenn waxtaan leen de waaye kenn du taal téléphone heure boobu kenn koo xam ne yaa ngi ci jàmm doo ko doo ko wute loolu amatul da gis ñun suñ suñ ñàkk famille gu ñàkk jaxasoo da ngay gis koo xam ne ñaari ñu bokk bàyyi seen i xamuñ seen doom maanaam ma bokk diw bàyyi xam ma doomam bu ma dajewoon ak moom ci mbedd du ma xam wala nga bokk diw bàyyi doo xam doomam doomam it xamul li ngeen séq seen doom xamante wuñ loolu mbokk yi ñàkk tabax famille bi koy waral ca waxtu wi daf cee am xaq ah yoo xam ne waaleykum salaam ku nekk ci ñu war na ko ci bàyyi xel incha allah taala waxtu yi mi ngi jot waaye li am solo moom mooy bu ñu ci yàlla mayee jàmm bu ñu delsee fe at àggale ko waaye li am solo dëgg-dëgg moom mooy doomu adama bu nekk xam na la ma waxoon ci bii weesu ñaar fukki waxtu ak ñeent muy 24 heures yi amul kenn ku kuñ ci dollil benn seconde ñëpp ñoo ci tollale ku la ci gën a farlu nag yàlla sëriñ Habibu Mbàkke mas naa ko dégg ci laa ma wax ko ne na ngeen xam ne yàlla amul kenn koo xam ne yàlla dalaa ubbil buntu nga ne yàng bu ne nga jàll déedéet da ngay bëtt wala nga burunglu dangay ngay bëtt wala nga burunglu nee ku fi jaar ku fi jàll rek dangay bëtt wala nga burunglu mooy lan mooy nga xam ne danga faw faaw mu metti nga organisé lu baree bari nag loo xam ne lu ñuy dal la ñàkk xam kii may waxtu moom moo koy moom moo koy waral dana am koo xam ne ñàkk xam kii may waxtu ba noppi ñëw fas yéenee sànq sa waxtu yow maanaam ñëw fas yéenee sànq sa waxtu xataa sax waxtaan ak lu mu am solo bu dee ci lu amul solo dëgg-dëgg ci yenn yi lu mu nuru nuru nuru lu ñàkk lu amul bakkaar ak yooyu rawat na ñuy dugg ci yeneen yeneen yoo xam ne man far dañuy jël ndabul waxtu la waroon a raxas seetal ko diw duy ko duyatuñ ci la lu jàkk far di ci duy ab safaan yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu yàlla jéggal suñu bakkaar yàlla ñu yàlla jéggal suñuy rëcc-rëcc yàlla ñu yàlla nangul mboolem yàlla jaamu yàlla guñ def néewoo bari yàlla na ko yàlla xool ci ak matam ak mu baaxam ak sallam ak yërmandeem ca bañ koo xool suñu defin wala suñu doyadi bi ansati Cheikh Xadim radiyallahu anhu wa salaamu aleykum